ñëwaat na. ndeysaan. Cheikh Super Jamono. Uh-huh. écurie Mor Fadam. Diabou Bargny. écurie Bargny. Cheikh Mor Fadam. ndeysaan. da ngay lewtoo. Caatu Bargny war moytu defaat 10 ndax am na benn avertissement ci sortie délibéré bi. dëgg la. kon bu jéemuloon serré. 8 defaatee 10 minutes Alaaji Maalik te Thiat Boucar yi boo ko xoolee macha allah. xale bu liggéey la. dëgg la gis nga yaram bi dafa naturel. dëgg la ci biir bëreel naturel. gis nga xale bi moo takk dàkk ak ndam ji moom Cheikh Super Jamono. ndeysaan waaye Thiat Boucar yi boo xoolee xam ne liggéey na. ndeysaan Cheikh Super Jamono liggéey na. waa ñoo ko ca kaw. waaw la Max di wax rek. liggéey naa laa mel rëy na rek. laa mel waaye ku si meeku ñu xam ndax liggéey nga wala def. xale bi def ko xale bi def ko. ah na ko. waaw waaw waaw dafa mel ni dégg na dafa mel ni dégg nañu Alaaji Ba. waaw caat bu kat ñu ne suba na ko. caa caat daa mel ni dégg nañu. waaw waaw. dafa mel ni dégg nañu. bu ñu bëree rëy na. supporter yi jox nañu. caat bu bari bi. forcément daan na Cheikh super jamono bërëb bi daan na ko. Cheikh démérité woo. ndeysaan bëre nga bay bëgg a dee. la nga amoon defe nga ko. ndeysaan wane nga jom. wane nga fulla wane nga fayda. waaye ndam moom. ñaareel dugg benn ay génn. dëgg la yàlla jox na ko caat. yàlla na ko jig. da koo tibb daw ak moom muy bañ mu dàq ko bàyyiwu ko ba ba mu tëbbee noonu daan na ko jënd bu rëy ndeysaan ma ngay dem di ko jéem a yëkkati. noonu la jóg. waaye Cheikh Super siisu na. ma ngay siisu. waaw siisu na siisu na jóg nañu. waa bat ñu na. ndeysaan waaw mu ngi doon ah, ko. dafa doy jël ko muy rasu mu yokk ko. dàq ko daw ak moom muy bañ ji nga mu yëkkati loxo ba ca wéeru ko xalab ko mu won ko ginnaaw def ko à l'appui. bu ñu xoolee nag sur l'ensemble du combat.